salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk téléspectateur RTT TV seen émission bu mag bi lay nga ki kan la nga xam ne maam Serigne Diop ñu gën ko xam ne ci Diop jubam moo leen ko fas yéene defal tey jii nag ñu dugg ci 8 mars nekk ci weeru mars tey jii ma dalal sama ñaari jigéen yoo xamante ni ku nekk cees ku ku ne dégg nga leen wala xam nga leen ñu nekk ñoo xam ni ay jigéen la lañu ba liggéey jotee ba jàng jotee jàng nañ ba liggéey jotee ñu liggéey ba li nekk nekk ci ay ndaanaan nekk ci ñoo xamante ni ràññee nañ leen biir kees ginnaaw bi ñu leen nuyoo bu baax ci weeru mars bi nga xam ne ci la nekk di nuyu suñu yaay booy bi nga xamante ni ba dara dul dara bu ndemee ba toog fii moom moo tax ñu koy jaajëfal di ko ñaan mu yàgg fi sama jigéen yi nag tey ji waa zone nord ñoo ayee dañ naan ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll moom moo tax nag ma indi sama ñaari jigéen yi nga xam ni mën naa ni ki féete sama loxo ndi joor sama mag la sama xarit la kii nag moom it sama mag la sama xarit la tournée tamit nekk sama soxna mu nekk daal spécial euh, plateau boo xam ne 8 mars bi maam Serigne Diop tey jii ci émission kii kan la lii la indi damay jox euh, magu kilifa jataay bi muy soxna Ndeye Fatou Kassé ñu bàyyi ko bu nuyu soxna Ndeye Fatou ñu ngi lay nuyu. waa asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di nuyu waa télé bi macha allah di leen ñaanal yàlla fan gu dëgg wér tamit association di leen ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér ndax macha allah tey jii la 8 mars kon bu ñu dalalee ci palaato bi dañ ciy sawar lool am ci mbégte bu baax a baax kii di sunu càmmañ nag di suñu xarit di sunu lépp di bàyyi sëriñ macha allah bu ñu woowee dañuy sawar di nuyu Mat Njaay mii ma toggandool moom tamit bu baax a baax di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn ku lim juum yaakaar naa loolu am na solo muy soxna Ndeye Fatou Kassé yaakaar naa li mu wax ci biir rek euh, ñi nga xam ni mooy euh, ñi yor salon yi moo leen fi teewal tey ci sama plateau ma nekk sama loxo càmmoñ muy soxna Mati Ndiaye soxna Mati Ndiaye ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo rek. waa maam Serigne ñu ngi lay fay di di nuyu ñëpp di nuyu euh, Ndeye Fatou mm-hmm. moom mooy présidente association des tailleurs et mm-hmm. waaw di nuyu ñëpp daal président Mousse mm-hmm. président regroupement des tailleurs. ah ak eh, suñu président Yankhoba Ndiaye di nuyu sama borom kër élagement Hadj Malick Guèye ak sama papa Ousaline Badara Guèye ñëpp mère ñaana gi nuyu naa ñëpp di nuyu yow maam Serigne mm-hmm. wax dëgg yàlla yow sama càmmañ lu baax na te ci nekk sama chéri mm-hmm. Eh, yaakaar naa nuyoo boobu am na solo liñ daan eh, ku ku wal mburu tuddub dëkk liñ koy waxee tey ni jotaay bu ngeen ko gisee ci émission kii kan la ñu war cee dajal ñaari jigéen yoo xamante ni comme ci seen weer la nekk ñu war a waxtaan ak ñoom ci tuuti ci seen jaar-jaar ndax nit bu demee ba samp dara war ngaa waxtaan ak moom ci jaar-jaaram ndax xale yi nga xamante ni ñoo toog di leen seetaan xam ne tey jii fii Mati Ndiaye toog am na fu mu jaar ba si fii fii soxna Ndeye Fatou Kassé toog am na fu mu jaar ba si fi tey jii la leen war a waxtaan ak ñoom ngeen amaat nag ci mars bi bis boo xam tamit da ngeen ko war a fas yéene def si zone nord mu nekk point bi nga xam ne fa la ñuy mujj soxna Ndeye Fatou Kassé boo ñu mënoon a résumer kan mooy Ndeye Fatou Kassé ci gàttal macha allah hmm. man maay Ndeye Fatou Kassé hmm. doomu umu xayri mbay ak Mor Xewe Kassé hmm. macha allah di madame Diouf. Eh, ma nekk nit koo xam xamante ni dama sant yàlla sant Seydina Mohamed sant sama ñaari jur mm-hmm. di sant sama jur wu jigéen bi ma dese ci kër ga di sant tamit sama boroom kër El Hadj Yoro Diouf mm-hmm. ndax li naan doole saxaar raay waaye doole jigéen góor mm-hmm. ndax namit ban ñu tànnee teg ñu ci kër ga dan di nan sàmm njaboot gi waaye dañ ñoo tànn teg ñu ci kër ga dina sàmmloo njaboot gi boole koog nag dina sàmm ak boole kook nag may ñu doole dooleel ñu ñu liggéey tey jii ba mën a agsi fii ñu agsi kon nag ku santul yàlla doo sant nit waaye sant naa samay jur sant sama boroom kër bu baax a baax a baax. Ah. moom mi ma dooleel ba ma agsi fii. soo Ndeye faatu Kassé ci waxtaan bi ci émission kii kan la. Mm-hmm. sa jaar jaar lañ bëgg a waxtaan tuuti. Mm-hmm. Ndeye Fatou Kassé ginnaaw bi mu juddoo ndax ay waajuram ñoom ñoo ko yar wala dañ koo joxe woon. bàjjanam yar ko wala tàntaam wala dara. waaw maam sëriñ loolu ba ma ci laajee dinaa ci sawar. Mm-hmm. ndax li ma ciy sawar mooy macha allah man sama yaay moo ma yar ak sama papa sama yaay moo ma yar ak sama papa ñu ma nag macha allah fi ma war a yare jàngal ma alxuraan macha allah jàngal ma liggéeyu kër jàngal ma lu ma war a jàngal ci àdduna macha allah. tàgguma sama bopp waaye xam naa fu ni doomu nit ku yiw di dem mhm. wala doomu nit ku baax rek mhm. mën naa faa taxaw te loolu lépp ñoom laa koy santewaate mhm. ndax yare dikuwuma baadoolo wuma defuma leen macha allah bi jàng métier joteet dan maa bàyyi ma dem jàngi métier ba tey ji ma am sama entreprise bopp kon nag macha allah damay santaat bu baax a baax a baax sama jur yooyu di la xamal ni la su ma leen mënoon a tëggaat ba am fukki at ak ñaar dinaa ko def ndax rëccu ma lu ma doon jure mm-hmm. macha allah. damay ñëw ci soxna Mati ci question bi rek danaa benn xeer la buy jam ñaari picc. Mm-hmm. yooyu it say waajur ndax ñoom ñoo la yar wala dañ la joxe woon sa bàjjan comme ni ñu koy faral di gisee wala sa tante kan moo yor soxna Mati Ndiaye. waaw maam man euh, maa ngi tudd Mati Ndiaye. Mm-hmm. dëkk na Fall. sama yaay nag moo ma yar. ndax man sama papa sax xawma maanaam man bi ma juddoo. Mhm. ba ñu war bés war a euh, avant bés bi di dellu si bi ñu may tudd la sama papa. Euh, wa euh, tàggoo ci la wàññeeku. Mhm. daanaka sama yaay laa xam moo ma yar mhm. ak sama benn nijaay. waaw moom daal ñoo ma yar sonn sonn na ci man trop nag. yar ma jàngal ma ba ma waree jàng ecole jàng naa. après li tax nag ma ma après ma teel a bàyyi jàng. après bi ma bàyyee jàng nag. ndax ñeewante ko. waa ki après ci laa dem jàngi métier. tailleur. sa waajur bu jigéen boobu nga wax moom nga moo la yar hmm. yan discours la daan waxtaan ak yow ci jamonoy xale bu jigéen ak yaayam. waaw li mu daan waxtaan ak man nag lu ci ëpp mooy hmm. euh, moom dafa dafa dafa bëri ay njaboot yu wàññeeku lool. Hmm. ndax dama amoon mag bu jigéen mag góor. ñaari mag yu góor kenn ki gaañu. ki ma topp gaañu. sama rakk bu góor gaañu. mu des man rek ak taawam. lu ji ëpp na dama doon wax ni ma. sama taaw sama taaw bii El Hadj Omar Sow maa ngi koy nuyu mm-hmm. ma nga dëkk Mbourkat mm-hmm. mu ne ma mooy sa sa mag la mm-hmm. mooy sa mooy sa papa mooy sa lépp na nga ko jox cër te boo gisee ku la mag na nga koy jox cër tey julli waxtu bu mu la raw te nag bul soxla benn alalu góor boo nga xam ni may ñu ko mu lew la wala mu doon sa mag yi nga xam ne moo la war a may waaw yaakaar naa loolu am na solo soxna Fatou day ñëw foofu ndax li naan doom ndeyam da caa foor su koy nàmpal sax da koy xool mhm. say waajur ñoom ñoo la yar mhm. ci jamono bi nga dëkk ci foo xam mën na wax banlieue la xawoon na rëb ak ndey faatu kase di mu dalee mhm. ndax waajuram yooyu ko yar discours yàlla daan waxanteeg moom ci na jigéen ju baax nii la war a mel wala xale nii la war a mel ndax xale yi nii seetaan mën ña xool ci loolu waaw Baye Serigne man boo ma laajee sama waajur bu jigéen dama ciy sawar ndax man dama bëgg sama yaay dama bëgg sama yaay loolu sax ba way jur wu jigéen bu ma gis rek mm-hmm. dama lay bëgg mm-hmm. li tax ma bëgg sama yaay nag mooy mm-hmm. sama yaay macha allah ñu danoo nekk ci kër famille mu metti lool dawul daayu tuxuwul amul lenn loo xamante ni rek dangay xool xam ni sa yaay mii dafa sonn moo tax mu daw te lu mu mës a sonn rek ak njabootam moo tax sama yaay daan nan wax naan fu leen waxtu julli jot fekk bu ne na ngeen julli mag mu ngeen tane bu ne na ngeen ko dimbali seen alal te ku ngeen gis ku ne na ngeen ko war maal loolu noonu sama yaay daan ñu ko wax macha allah moom laay dunde su ma gisee ku fonk sa wayju sax man damay jooy ndax man damaa bëgg sama yaay ci tele laa toog di ko wax te ñépp a koy seetaan te ku xam nday faatu kese rek xam na dafa bëgg yaayam waaw mu mel ni jamono loolu ñu la doon wax jamono bii dafa raar ci xale yi léegi. Mhm. xale yi toog din seetaan lan ban message nga leen war a lancé ñi nga xam ne ñoo nekk ak seen yaay yi ndax loo ci deful ba mu wan la ginnaaw dootoo ko mën a def. man daal li may lancé xale yi yi nga xamante ni ñooy ay xale. Mhm. te dese seeni i wayjur luñ ci man ci lu baax nan leen ko defal ndax wayjur dafa nekk loo xamante ni mooy gàllaaj ci doom mhm. te bu la xasee wan ginnaaw. jeex na te ku amul sa way jur ku ne perte nga ndax ku tàdde rek xamal ni kala raw way jur la kon nag man li may wax xale yi topp leen seeni wayjur bu baax a baax a baax a baax fonk bu baax a baax soo amee juróom jëlal ñett ya nga may jox sa way jur mu ñaanal la jarul ngay wut sëriñ jarul ngay wut dara ndax gàllaaju doom ci ndey lay jóge yaakaar naa loolu am na solo ñuy nuyu waa xam ne mooy waa zone nord di gërëm bu baax président bi ba jaay di nuyu nag sama jigéen ñi comme ci weeru jigéen la nekk soxna Ndeye Seck Ndeye euh, soxna Ami Thiam Kumba Jaw Diouf nga xam ne moom it dafa bëgg yaayam lool nga xamante ni moom bisu yaayam ba ku fa ñëw xam ne am na fu mu ko yaayam tollu woon di nuyu soo ko di Adja Awa di jaajëfal ñëpp soxna Ndeye Anta tamit ñu leen di jaajëfal soxna Mati ñu ñëwaat ci foofu même question bi mm-hmm. nga dem ba nekk majeur nekk ak sa yaay ñaw bi nga dugg yow yaa ko bëgg wala say waajur ñoon la demal jàngi ñëw. waaw man bi ma nekkee élève. Mhm. di jàng maa ngi bàyyee quatrième secondaire. quatrième secondaire. ci début année bi laa bàyyee. ni mhm. taxoon ma bàyyi nag du dara lu du yërëmoon sama yaay. ndax mhm. daan def lu bëggul bëggul ma rafle. bëggul ma xiif bëggul ma mar. ak élève. waa ak élève ak situation. waaw boo dee boo dee def boo ñëwee rek sa yaay lu mu yëkkati jox la. nga yërëm ko day mujj ba boo demee classe sa xel day nekk ci moom trop mhm. te sama yaay dafa bëri boobu lu may feebar temps yooyu mhm. sama xel di nekk ci moom mhm. léegi nag après nag ci laa waxee damay bàyyi jàng ba waxee damay bàyyi jàng sama mag bii ma lay wax El Hadj léegi moom mu ne ma euh, est-ce am nga carte d'identité boobu matalaguma sax 18 ans mu ne ma est am nga carte d'identité ma ne ko amaguma carte d'identité mu ne ma demal nga wuti carte d'identité ma yóbbu la LONASE nga liggéey fa waa LONASE ku fa nekk ñoo may dégg surtout Idriss sa Sène moom moo nekk ci box bi ci biir temps mm-hmm. yooyu sàll moo fa ne mu yóbbu ma Lonase ma ne fa mm-hmm. ma nekk Lonase di liggéey mais bi ma nekkee Lonase di liggéey mm-hmm. yemuma woon foofu rek dama doon wàcc dama wàccee sama yaay ni ma tee nga cee boole beneen métier après ma yóbbu ma centre formation des handicapés ma jàngee foofu booba madame Diène moo fa nekkoon voilà commencé woon di jàng bi ma jógee foofu ma dem ci Sidi Fall après nag ma continuer noonu continuer ba sama benn nijaay bu newoon Allemagne mm-hmm. gaañu na léegi mm-hmm. mu jëndal ma machine ma jël machine bi teg suñu néeg di ñaw di dem lonaas di ñëw di ñaw. kon da nga boole woon dem lonaas bi ak jàng ñaw bi. waaw di jàng ñaw mm-hmm. waaw. ndax boobu yëpp am nga loo gis mu wóor na léew lii yaa ko war a teggi sa waajur bu jigéen. waaw kay ak yërmande nga am courage boole ñaari. ma tegg ko lépp ni ko yaay dootoo ma jox ma ndékki. léegi maay ndékki joxaal la nga ndékki. yaay dootoo ma jëndal mbubb. maay jënd jëndaaleel la. lépp ma tegg ko sama yaay. di nekk noonu ba bi ma amee borom kër élagement liggéey ñu ñu bëri xam nañ ko muy oustaz mm-hmm. mu ne ma bàyyi lonaas bi mm-hmm. tere ma ko bi ma ko teree ma continué ñaw bi ba ma sëy sëy fii nag mëti ci côté ñaw boobu ndax mm-hmm. mëti dañ koo ber wala mëti berwul daa sëy rek yóbbaale ma si nu ubbi place man nag xaaruma fa ay ber <laughs> maanaam bi ma bi ma bi ma nekkee di ñëw dem dem naa ci Sidi Fall damaa doon nit ku sob nag koo xam ne maanaam su ma gisee modèle rek dama koy ñaw. da koy def waaw ndax am na bi ma ñëwee fii ku ne eh, xam na Baye Thier. Mm-hmm. Baye Thier mu yore place yi ci côté Don Bosco moom ku baax la ak maam Serigne yow mii. tey jii su ma continuer ci ñaw ba nawet yow mii ci nga bokk. Mm-hmm. moom mii ak Baye Thier. ma doon won ay modèle yu bëri naan ma nii lañ koy daggee nii lañ koy daggee moom maam Serigne mii sama machine boo ma yoroon paan mu mu tegtal ma fi may aw ba defar ko. Mm-hmm. bu ma ko defaree mu may ma fit moom Baye Thier ba ni ma tijjee atelier nag ba nekk ci nii. ku ma jox modèle ma ñaw ko di ci kii loolu daal di ci dóor waar ba tey ji yàlla euh, def liggéey ma yoree sama entreprise bopp yaakaar naa lool am na solo ndax dañ naan euh, dimbal da ca fekk loxo borom li muy wax nii bi ñu koy def bi muy sëy si koñ bi xamuñu ko woon waaye bi mu ñëwee fekk fa ay téye daa ñëw tàpp ci ñoom li mu bëgg mu mën koo am jomam ak fulaam ak faydaam moo tax soxna Ndeye Fatou Kassé wàllu salon bi hmm. ndax salon dafa doon loo xam ne yombul Mhm. day faatu kase salon bi moom moo bëgg ni damay dem jàngi salon wala ay waajuram ñoo ñu ko demal jàngi salon. waa Baye Sëriñ mhm. loolu boo ma ci laajee dinaa sawar macha allah mhm. ndax Baye Sëriñ man alxuraan laa jàng macha allah. waaw ndeyka ndax wàcc nga wala wàccoo sax foofu. déedéet wàccu ma ah, waaye macha allah xam naa ci <laughs> xam naa sunu borom bu baax a baax a baax macha allah Baye Sëriñ. man dama daan jàng alxuraan su ma masaan wàcc damay ñëw ci kër gi toog di létt jamono bi may létt dama daan tegle ay ban di létt macha allah. pour mën a jot nit ñi. pour mën a jot nit ñi. mën a létt lool nag torop torop maam sama mag boo xam ñoo bokk ndey ak baay macha allah muy Fatou Mbaye Kassé moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ak sama taaw yaay mbaajo du nuyu sama famille bépp daal macha allah. kooku dafa mënoon salon mm-hmm. mu nekkoon don ci moom mais yàlla mi dëdëtewul dafa def muy dem dakaar ni ma ndey man ko amul ma boo toogee ci kër gi sa métier mën nañ kaa bañ a xam bu baax te am na yeneen ak yeneen yoo xamante ni dinga ko soxla dama bëgg nga xool benn salon nga dem fa nga jàngi fa bàyyi sëriñ may jàng euh, ma am koo xamante ni sama mag la di sama xarit di sama patron mooy Aïda Mbaye Ndigal. Aïda Mbaye muy soxna sëñ Cheikh Ndigal Fall. Mm-hmm. kooku dama koy ñaanal yàlla fan lu gudd ak wér. ndax nag bu heure bi fekkoon tey mm-hmm. muy liggéey di ma ko nëbb mm-hmm. macha allah du ma mën lii ma man ndax macha allah bi ma jógee sama kër ndey ak sama kër baay fekk ko ci palaasam jàngal na ni sunu métier mais boole na ci yar bi jàngal ñu yar xool ñi nga xamante ni noonu la ne ak client ak mbaax gi ak lewet gi waaye tamit nag ak fulla gi ak dignité gi ak personnalité gi macha allah loolu lépp mu def ko ci ñun Aïda Mbaye man moom rek laa mas a jaar ci métier mosuma jaar feneen ci keneen mësuma faa jaar ku dul sama sœur bi ma la wax ak Aïda Mbaye ndax 88 lu ubbi salon 91 92 mu tukki bàyyi ma ak palaasam ma nekk fa macha allah ba ni ma amee sama place 2000. Mm-hmm. ay dambaay dong dong dong moom laa ma sa jàngal mi moom ma ma sa jàngal métier. 2000 mm-hmm. nga ubbi sa daaree mm-hmm. bopp. léegi dama dekkoon am njaatige léegi ñu indil la ay xale yoo xamante ni yaa leen war a jàngal. jamono bi nga xamante ni nga am njaatige ak xale yi nga xam ne yéegi yaa yor différence bi boo boo ñu mënee comparer différence boobu lan la ndax xale yi léegi ak xale yu njëkkee bokkuñu. Baye Serigne loolu bu ma ci laajee dinaa ci sawar. ndax lii may wax nii ku Kumba Jaw Juuf mu may dégg sama njëkkale di sama xarit ñoo jàkkaarloo place macha allah mu may ma càmm ñam nag macha allah ak daam cuun ak jaal géey tubaar fakkaar la ku lim cuum macha allah waaye lii may wax su dul woon du dëgg duma ko wax ci télé ndax loo xamante ni day àgg fu nekk la man nin ma yare jàngale ma noonu métier hmm. noonu laa jàngale sama ay apprenti métier hmm. yar gi ñu def ci man hmm. discipline gi ñu def ci man ak mën a ak yi bi ñu def ci man moom la moom laa def ci ñoom man su may génn di dem am cliente sax dama naan leen ba cliente tel dikkee nangeen ko defal lii ak léegi lii wër na yàlla laa wax ñoom ñooy tourné encore. ñoom client yi di ma woo di ma remercier. ndax xale yi ma fa bàyyi. ndax xale yi ma fa bàyyi macha allah. am xale yu baax nag laa fa bàyyi macha allah wax dëgg yàlla. yu ma jàppale nag yu ma yërëm ñoom ñëpp nag ma kenn li ko dale ci ndey ante sama doom soxna Njaay sama doom macha allah ak Soda Mbaay mer may sa sama sët ba fa nekk ak euh, mama jabu ma kenn daal maa xadi. macha allah ndax soxna Ndeye Fatou Kase am na emprunté bu mu jàngal salon ba ber ko ndax am na wala amul. waaw am naa ay. ay macha allah ay am na solo ay la ay néew ma la am naa benn néew ma la am naa ñaar. Mhm. am naa ay ñoo xamante ni. maa leen jàngal. Mhm. ba ber leen salon. ñu ubbi macha allah wax dëgg yàlla mhm. waaw. yaakaar naa loolu am na solo ñu daal tourné ci soxna Mati Ndiaye soxna Mati nga commencé woon ci benn machine muy karkar yi ngay paan. muy paan ngay yenu di yóbbu ci paa ñang di yóbbu ci maam Serigne di yóbbu ci Baye Thier dem ba yàlla def xéwal ak taxawaay yi soxna Mati ñan ñoo ko teg ba tey ji mu ubbi entreprise teg ci ay machine yu baax bay ñawal ay client fu ne Mati taxawaay boobu lan la ak bëgg-bëgg bi. <laughs> <laughs> <laughs> wuti wuti eh, teg tayoon bi ci suuf tuuti mu pause. pour wuti doole. waa pour wuti doole. ma hmm. dugg ci marché bi nag ma bi dem ci fëgg jaay bi. Hmm. ci laa xamee woon yaay Fall maa moom ñu ànd. ndeysaan may dem usine ba. Hmm. ak sama digg boot sama sama ñaareelu doom bi mu am mu am si ay ay kii rek la amoon ay 6 mois yooyu rek ma bokk ko. ndeysaan ba demee mu sant dem usine ba. naa wàcc ci marché bi lu mat ay 20 bal 30 bal. yu bëri ma placé yóbbu. ay ñoom daam seen. am na keneen ku ànd na ñoom Sané di théâtre bi. ndeysaan mu taw taw gaañu leen. waaw waaw waaw ñoom ñu moom mu Sané teg bal dañuy ñëw eng eng engagé bal ci man. Mhm. dañ koy dañuy ñu daaj ba pare ngay mhm. doog a jaay. Mhm. may placé foofu ay bal ci marché bi di jaay ak sama ndig ba mu yàgg. après ma demee na ba xool ba xam ne métier tailleur day métier noonu. léegi nag ma ñëwaat. yow daal dem nga ci fëgg jaay bi waaye bàyyi nga xel. tailleur bi dem naa ci fëgg jaay bi bàyyi xel maa ngi ci ma dem jaay ba mu yàgg ma bàyyi ñëwaat teg sama taabal di jaay reer. Mhm. loolu yëpp def naa ko. kon soxna Kumba yaay na reer. yaay reer ba mu yàgg ma ñaw. Mhm. su ma ñëwee ci déparé benn boobu ma ñaw su ma mhm. ñëwee am ñu ma koy placé chaque fin ma fayee. ma dem ba mu yàgg nag sama borom kër bi élargement liggéey macha allah. ku baax ku ma jàppale. jàppale na ma lool sax. ba mu demee ba mu yàgg mu ne ma waa nga yaakaar ne doo continuer ñaw biir nga tijji ci place. man ko man kay bëgg naa loolu jàppale ma mu jàppale ma jëndal ma beneen machine. ma dem cité ouvrière benn jigéenam. Mm-hmm. bu ñu naan Ami Dieng. bu mm-hmm. boole maa moom mu tijji fa place. Mm-hmm. ma nekk foofu di fa dóor waar di mu yàgg nag. après ci laa gisaatee place bi ci kaw tali bi. après ma ñëwaat mu jàppale ma. wutalaat ma beneen machine. defar ak yooyu noonu. defaraat ak yi ma doon noonu ma defaraat place bi yooyu daal toog na. am ni daal tailleur bi daal. gëm naa ne moom foofu la ma yàlla boole daal. mu nekk loo xamante ni metti woon na commencement bi. nga dem ba mu yàgg mu neex nga dem ba ubbi place gën a ñemee sa bopp ci kaw télé bi léegi dem ba ba ci samp entreprise nag yor ay xale yow ni la yore woon ak xale yi nga yor ndax ñoo bokk wala bokkul. waaw euh, temps yooyu yoroon naa ay xale mais fi mu toll benn xale sans place mm-hmm. ndax li tax yoratuma bu mooy bëgguma lekk àpp mm-hmm. xale yi fa nekkoon yi ñu ko nekk boobu maa nga fa newoon ak ñoom di temps boo xam dama leen di jàngal mm-hmm. ñi ñii dem nañ ba sëy am seen machine di continuer ni ñaw mm-hmm. ñii dem nañu di sëy ñu jël leen fenn comme amement ñi ñaw yooyu ah mais léegi bi ma demee ba mu yàgg ci association des tailleurs ku ne xam na ni mataat jén mm-hmm. moo newoon ci centre formation ba ba léegi mataat dem ba ak yëfu boppam mm-hmm. léegi so suñu président bi ne ma mati ma ne yow laa xalaat pour nga ñëw newuñu directrice centre bi après mu wax ko ñun ñëpp rafetlu ko nag ma ñëw nekkal ko foofu comme du may nekk tout le temps lu bëri foofu mhm. bëgguma di ñoo xam ne dañu da nga leen a war a jàngal am temps pour jàngal ngeen nga leen di sa place mhm. chaque fin du mois ñu yëkkati la fay nga koy lekk loolu daal mhm. ñëw ak googu laa ñëw ak googu laa ñëw moo waral su may dem damay tëj bi tëj porte vert yi bàyyi ko noonu boo demee liggéey foofu waaw su ma ñëwee tam guddee ñëw mu guddi te jamono ji góor ma tëj ko am naa machine kër bi su ma amee ñëw bu yàkkamti ma ne ñawee ko yaakaar naa loolu am na solo mu nekk loo xamante nii yor na palaasam am ay xale yu fa nekkoon mu dem ba centre formation bi wala occupé ko bëggut a lekk ñàkku xale yooyu ndax seeni waajur ñoo leen ko jox ñuy fay mu libéré leen am ñoo xam da leen a jël yóbbu ci centre ba bu jëmee centre ba jàngal leen bu jëwee xëyee nekk ci palaasam soxna Ndeye Fatou ñu ñëw ci nag ci Ndeye faatu la moo ko gën a naqari ci xaleem loo xam ko fàtte ci jaar-jaar bi loo ni moom <laughs> da toog ba ci yàgg sax <laughs> <laughs> moo xam <laughs> nga lépp nit am ci kii wala lu ko gën a naqari ci xale. non man dara naqariw ma wax dëgg yàlla ci samay xale. sa xale yow. Ah, man sama xale. waaw ah. xanaa soboon nag lool <laughs> bari woon affaire torop uh-huh. wax dëgg yàlla. mënoon a fecc nag lool. Ah. waaw soo Eva daan na wër xumbali yeeg ñoom seen yooyu. daaw ma wër xumbali de sama tàkkusaan laa daan wër bàyyi ndax sama yaay bu ma mosaan wax dama defar néeg bi ngoon gi. Eh. damay dem mhm. bu ma demee dégg sabar rek daal di tëb miir mhm. ndax amoon na miir bu gàtt bu nekkoon sama diggante suñu diggante kër daal boo xam ne sama danoo am porte boo xam ne mooy jaar su ma demee nag <laughs> fecc kër gi nag ma def lu dul rek dégg allah ak ma <laughs> timis <laughs> sëriñ eh. yooyu daal masha allah daal billaahi damay toog ci yàgg ñu naa ma sa doom yi dafa sob sax. Mm-hmm. may xalaat man ni man fi ma jaar man sama doom xalaatu faa jaar. tabu la daal wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. <laughs> yaakaar naa loolu am na euh, ki mm. mission kii kan la lii rek lañ ci jublu. Mm. soxna Ndeye faatu kase Binta la yaakaar naa am na lu wax ci moom loo xam ni bari na ñu nekk ak moom xamuñu ko woon. Mm. bari na ñoo xam ne ñu ngi nekk ay client di ñëw ci moom xamuñu woon ni sax am na fu mu jaar ni nga ko waxee ci soxna Mati Ndiaye moom it mu nekk jigéen joo xam ni daa takk sëram dem fas yéene dem liggéey ndax ni mu ko waxee doon na liggéey ci téyeer yor benn machine dem ba mu naqari mu dem bàyyi ko fi di boot doomam di wuti ay bali fëgg jaay di placé ci marché bi ba yàlla defal ko borom këram jàppale ko kon jaar-jaaram am na solo kon xale yi nga xam ñoo nekk ci place yi yaakaar ne day xëy rek mu neex du noonu. dafa metti mati place am toogatu fa mu ngi centre ba ndax xale ya fa nekk dégg naa sax dafa am beneen tur bu la wutal foofu léegi bàjjan sax ngay dégg dootoo dégg mati turu bàjjan boobu lan moo ko indi mati. waaw maam turu bàjjan boobu. Mm. moom sax li eh, kii génn na léegi centre bi war ci le 9 mars bi ñu organiser le 10 mm-hmm. incha allah mm-hmm. war nañ ko cee jox sax diplôme. Mhm. ndax pare na foofu ba génn xale boobu. Mhm. dafa am euh, benn bàjjenam bu tudd Mati Ndiaye. nekk sama turandoo ñu bokk tur bokk sant. mu bañ laa sàllal mu ñëwee nag. Mhm. léegi nag ni ma noo tudd man ko man Mati laa tudd ah sama bàjjen nga sama bàjjen Mati Ndiaye la tudd. xam nga dafa am laa bañ ñoo xam bu benn kii rek day dem. macha allah. xale bi yarul lool ñu naan su ñëwee ni ma bàjjen. kontaan ci bàjjen bi lool nag ndax bàjjen dafa doon euh, ku ñuy joxul cër ñaare duñ la ko wax. ñëpp fekk si ko ci bàjjen googu nag ñëpp naa ma bàjjen macha allah. ba bàjjen gi law daal bàjjen lañ la may wax. léegi gi kay daa law ba ci xam ne sax ñoo ko ba. waaw ah. soxna Ndeye Fatou Kassé ñu ñëw ci la dix bi ngeen di organiser ma dégg ni yéen a ngi oteesu yéen a ngi commande ay xar ay ginaar <laughs> yëpp la huit mars bi taxawaay bi nag ak cant yeeg ngërëm ndax waxtu mi ngi jëm ci jeex dégg naa nag monsieur Diouf moom da ngaa ñëw rek téye ko ci roq bi moom nu mu la dem fenn. <laughs> dinaa ñëw ci la 10 mars bi. Mhm. mais da ngeen a laaj laal point boo xamante ni. Mhm. moo yoroon micro bi wala may wax dara damay wax ci moom muy Kumba Jow Juuf. ku baax. Kumba Jow Juuf. ngeen ak mbaaxam. Mhm. man ni ma xamee ak mbaaxam macha allah dafa ëpp. Kumba baax na. laabir na tabe na. bëgg na lu rafet bëggul dara lu ñaaw. li olof njaay nag naan mhm. jot ak temps moo amatul mhm. loolu moo ko jàpp mais xelam ak xolam mhm. jugul benn yoon ci association bi ndax ki nga xamante ni xelam ak xolam jugul benn yoon ci association bi mooy ki nga xamante ni chaque jour yaa ngi déggante waa association bi yaa ngi ci groupe bi yaa ngi ci lépp mais xam naa ni temps rek la amul mais incha allahu rabbi situation boobu yépp fi mu toll nii décanté wu na. Mhm. ndax am na ku ko nekk ci ay xalem. Mhm. affaire yooyu. loolu moo tax programme yu baree bari buñ ko wootee. Mhm. tànk bi duñ ko gis. mais buñ ko gisul sax man lay forcer nday far kese na nga dem. nday far kese defal di nday far kese nangam. kon kooku li olof ñooy naan nekk ci xef yi. nekk ci xol bi moo ko dëgg yàlla. moom da day faral di wax naan lu ngeen def baax na. waaw nit ku baax waaw lu ngeen def baax na. maa ngi seen ginnaaw macha allah bëggul dara lu ñaaw. soo ko déggee mu wax rek xamal ni. macha allah am na lu débordé loo xam te dina ko wax ndax li ma ne sànq mhm. ñax wu wow mhm. dina laq bu tooy mhm. moo tax mais moom mention spéciale moom mooy sama njëkkee xol mooy rafet ci amañ mooy ki ma jàppale daal macha allah monsieur Diouf <laughs> ah kooku nag wax dëgg yàlla yun buñ ko tuddee damay sawar ndax monsieur Diouf macha allah Diouf ñoo ko sàmba baax na laabir na yërëm na ma mhm. bëgg na ma xam na ne maay kan mhm. te ku bëgg sama njaboot la mhm. ku bëgg sama famille la te ku bëgg fameem la tamit ndax li olof njaay naa bu ne diw baax na dana naa ndax bokk yaa ko wax tey jii su ma toogee ci tele bi di ko gërëm te ay mbokkam waxu ko du safee mais ay mbokkam ñoo ko bëgg njëkk wax macha allah te ku bëgg njaboot la tamit dama koy ñaanal yàlla daal fan lu ak wér ak xéewal bu yokk mm-hmm. yàlla guddal fanam yokk ay garaatam mm-hmm. ba xale yi di ko yóbbu màkk ci barki Seydina Muhammad ci barki alxuraan ah tàggoo bu mujj bi may tàggoo moom mooy macha allah yàlla bu nekk suñu mujjantalu toogaay mm-hmm. di ñaanal yàlla télé bi tamit yàlla jëmale ko kanam yokk leen yéen tamit macha allah yokk tamit suñu càmmañ lii di bàyyi sëriñ ak Mati mii macha allah. ak jigéeni association bi yëpp ak góor ñi ñëpp rek. ak Adja Awa Mbengue Mbow ak Adja Awa ñoom Mati Ndiaye ñoom. Ami Thiam ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn rek macha allah. ak Moussa Baye Fall day safar waaw macha allah bàyyiwuma kenn rek ak Pambay ma soogi. Xaadim mm, Ndiaye Ndar Fall Xaadim Ndiaye ñëpp rek. bàyyiwuma di ñaanal bu baax na ki nga xam ne moom mooy laay si. ci ñun la bokkoon yàlla defoon yaram bi xawoon a tawat. waaye yàlla def na ci li nga xamante ni mooy amicale bi mhm. dox nañ ci ay tànk jéego ku mel ni soxna Mati Njaay bi mhm. ak lin am ak lin amul yëpp ñu boole ko ba yàlla def ni xëy na fekk nañ ay mbokkam di ko faj waaye am na mhm. loo xam dafa rafet bokk ci mbir dem ba sa yaram sutante ñoom ñu xool li ñu war a def ñëw jàppalee la ko moo xam mu néew ko mu bari démb rek maa ngi koy dégg ci groupe bi muy sant ñu koy ñaanal bu baax a baax mu tane ba ñëwaat ci mbooloo mi. fàttali ko sa daanaka foofu di di remercier Euh, association bi jigéen mm-hmm. ñëpp daal ku lim da ngay juum di ko commencé ci day faatu kase mi mm-hmm. ñoom euh, aji sumaare mm-hmm. ñëpp daal ku bañ ñoom ñëpp daal ku dégg sa tur rek nga xam ni tudd naa la ci sama xol ak sama xel waa euh, ak suñu président ñëpp daal maa ngi leen bu baax a baax grand Pape Mbaye noonu Pape mbay Mousso gi laay si li nga ciy wax rek nañ ko ñaanal mu gën a wér. Mhm. yàlla def nga yow fëgg boppam ba ñu tëdd tëdd kenn. ba mu ñëwaat ci mbokk waaw moom dafa maa bëgg moom macha allah. Mhm. ñun ñi dañoo bëgg. défilé de mode day ànd ak mati ñëw toog. atelier buy fee day jël séesam ñëw toog. waaw <laughs> <laughs> mhm. mooy def waxtaan bi. waaw mooy def conférence bi. am nañu beneen waxtaan ak ci affaire entrepreneuriat. maanaam affaire koom ñuy def ak yooyu. moom mu laal ci conférence bi. a xaw a foofu ndax moom moo jigéen ñi ñoo far. mati da ngaa ñëw fu am solo. Mhm. ndax da nga gis ñoo xamante ni. ay le huit yi. Mhm. ay tëgg leen ñuy def ay sabaru ay yëfi kii ma gis yéen ngeen ni da def conférence ngeen toog woo kilifa mu ñëw waxtaan ak yéen loolu tamit méthode la beneen façon la boo xam ne bu bu am solo la. waaw bi bi ñu xalaatee dañu ni ñun ay jigéen lañu. Mm-hmm. ay ay ay ay kii lañ. <laughs> waaw kay ñu ne léegi nañu nañu ciy dugal tuuti affaire diine. Mm-hmm. waaw mm-hmm. ñu def jigéen. Euh, devoir de de la femme. et de la femme. avant l'islam et après l'islam. thème boobu la ñu mu traiteel ñu ko. après femme boobu Marème Sarr. defar ñu affaire entrepreneuriat affaire koom-koom yooyu. waaw mu mel ni émission kii kan la tey jii ñii la leen indiloon muy ñaari jigéen yoo xamante ni bay nañ seen waar. métier miñ ci nekk kenn ku si nekk ci li nga nekk kàngam nga ci yaa ngi yor ay xale di leen jàngal ba am ñoo xam ni génn nañ ba nekk yeneen yitte lii rek lañ jublu jaar-jaaram ndax xale yi toog di ko seetaan mën a roy ci moom ndax Mati Ndiaye mi bu ngeen déggee fi mu jaar ci waajuram bu góor teel a wàññeeku waajuram bu jigéen nekk fa mu di ko yaakaar naa bokk na ci la am solo sax Ndeye Fatou Kassé mii li mu wax ñëpp di kontaan bu baax ci émission kii kan la bi nga xamante ni seen télévision RTT TV koy def ñu gërëm bu baax président Mamadou Seck ak Modou Fall mi nga xam ne moo nekkoon caméraman bi di leen jaajëfal di jaajëf ñëpp di kontaan bu baax a baax jaajëf